di leen nuyu ci turu mouvement marabout républicain man Abdou Lahad Bousso moom Serigne bu Bousso ma nekk président bi feggoog Serigne Saliou Diatara waa Daaru Salaam ñu ngi nii toog waa Mbàkke Xewar ñu ngi fi waa Mbàkke Dimb ñu ngi fi waa Mbàkke Bari ñu ngi fi waa Tiib mouvement bi dafa yaatu mouvement marabout républicain bu départemental de Mbàkke la ñu amoon tuuti nag loo xam ne dañ ko bëgg a leeral muy ay kàddu yoo xam ne dañ ko fiy dégg fan yi ci menn mbokk moo xamante ni dafa mel ne suñ leader premier ministre dafay ñëwoon barki démb doon dox tànk wëllëre ak tànk lislaam tànk yoo xamante ni bi ñëpp a ko bëgg ñëpp ko nangu muy sëñ Abdou Karim Makarima lax-laax daa doon mbokkam di xaritam ab taawam nelaw mu ne du ko waaj day ñëw fas yéene ko jaale si te it yàgg nañoo gis premier ministre buñ ko namee balaa def dara day ñëw tubaa nuyoo si donte ñëw na ci xalifa général di murit ay yooni yoon waaye ay rakkam a ngi fi seexi suñ tubaa nga fi yoon murit yëpp a ngi fi te dañoo yaatu mu bëggoon koo yaatal ñëwoon fi doon nemm si bi mu jaalee sëñ bi ba noppi nag am ay tànk nemm ko yu mu doon def yoo xamante ni dara rey politique laalu ci ndax bu doon politique di cee laal yaakaar naa du bàyyi ba nit ñëpp dem poroxaan mu di fi ñëw ndax du fi fekk kenn it ndaje moo xam ne nii wala nemmee ko boo xam ne nii préfet départemental Mbacké ak sous préfet arrondissement Ndaam ñoom ñëw ko jiite yaakaar naa ne dalay politique ñëwu ca am mbokk moo xam ne nag dafa taxaw yàq lu mel ne xeme suñu leader di premier ministre ci wax ju ñaaw te wax joojee bañ ko toppee intérêt boppam dong nga tax ndax ku ne xam na ko muy Fallou Galass Sylla ñu di ko woo ci mu bàyyi mbokk njabootu Serigne Touba gi muy jéem a jaxase ndax mënu ko waxuñ ngir tontanteeg moom waaye dañ koy wax ngir alerter ko mu bàyyi yi muy def parce que yi ay caaxaan la bëgg loo def ci sa bopp wala loo yóbbu sa kër wala doo def ci sa poos jërul ngay tuumaal njabootu Sëñ Tuubaa ndax Amadou Ba de ku ne xam na ko ku ne xam na bu yaram Sëñ Muntaxa mënta def déclaration ne day bañ ku def ndajem politique ci Touba préfet départemental su préfet toog mouvement marabout républicain bi ñëpp njabootuk sëñ Bàkki Buso njabootuk sëriñ Baye sëriñ Jatara njabootuk maam Cheikh Anta njabootuk maam Maaram njabootuk yoonu murit wépp toog doon ay kilifa di ko jàppale di ko seetaan muy def loolu loolu duñ ko def loolu dañuy jaral ñun ñu bàyyi ko bu ko doon def waaye defu ko lim doon def dara néewu ci ayut permanence bi ñuy tudd sax permanence ba néewul ca Mbàkke néewul ca Touba Mbàkke la nekk te Mbàkke kenn tëréwu fi politique sëñ Mountakha yi tëréwul benn politicien bu ñëw Touba jëmmi politique la fay tere te politicien yi yaakaar naa bu fekkee kenn dana ko fa defit du doon Amadou Ba incha allahu rabbi ci ndigal lay dox ci ndigal lay wéy monsieur le ministre bi nga xam ne moo fi nekk àndoon ak moom yaakaar naa ne bu fekkoonte ni bi ndajam politique la bala ko wax kenn ñun mouvement maraab républicain bii ñun lay njëkk a woo ne ñu Amadou Ba dafay ñëw ngir politique ngir nangam ak nangam nangam ma bëgg ngeen ñëw ñaanal ma ci jàppale ma ci te defu ko benn leader boo xamante ni bii wala benn politicien boo xam ne teew nga fa te galoo woola ne la ñëw fi Amadou Ba day kii amul ku fa dem yaa fa demal sa bopp politique daal taxu koo jug taxu koo ñëw te kii wax loolu muy Fallou Galass la lii muy wax naan dañoo bàyyi ba Sëñ Mountakha dem mbul euh, fële poroxaan ñu ñëw ginnaawam bàyyi ba bàyyi faale dem ñëw seen ginnaaw loolu dëgg sëñ si dem sëñ Abdou Lahat mooy suñ Muntaxa sëñ Dame Atta mooy suñ Muntaxa njabootu suñ Tuubaa gépp ña nga fa te kenn ku ci nekk sëñ Amadou Ba dem na ci sa kër saafonte ñoom bu fekkonte ni bii ndigalul sëriñ Touba dañ koy sàmm yaakaar naa ñooñu ñoo koy sàmm ndax ñoom ñooy sëriñ Touba waaye du moom moo koy sàmm te intérêt boppam dong tax mu di ko de gis fi soxna Ayda Diallo jamono yi la ca ginnaaw ba mu fi defee loo xam ne lislaam rafetlu ko kenn ku yëngatu ci diine jën diine yi rafetlu ko sëñ Muntaxa woo ko ba mu ñëw digal ko la mu ko ciy digal mu lànk yoonu murid yëpp taxaw di ko naqari ba abandonné ko Fallou Galass Syll moo taalub otom solo daalam dem ba àgg toog ak moom xamal ko ne ko li nga nekk mooy dëgg kon moom bu ñu dee xeex sëñ sëñ Muntaxa wala ñuy wooyee fal ay kàddu moom moo ca jiitu comme mën a nax ñun bokkuñ ci yooyu na ko bàyyi am naa information boo xam ne sax ragal naa ne biñ nee da premier ministre dana ñëw Daaru Salaam moom toogoon na fa di ko xaar ba mu demee bëgg suuf ko lam yaakaaroon mu dugg ca poosam jotu ca moo tax muy wax wax ji waaye kilifa daal dafa am loo xam ne boo ko dundee ci at dafa am yoo xam ne da mm-hmm. sa taawu baay mbooloo nga topp ca ginnaawam te bi nga la ko da ngaa waxtaan moom ba mu jox la ci ndigal kun ne ci woon bàyyil nga bàyyi te suñ kilifa yooyee nga xam ne ñoo fi nekk li ñuy def ñu tàggu leen ci bañ joxuñ ci ndigal ku ci sëñ mun waxuma sëñ taxaa di leen woode waaye ku ci xam ne suñ sëñ Muntaxaa bëggul lii da nga ko bàyyi ci bis ba ñun ci ndigal la ñuy wëy lii nag ni ma leen ko waxee rek ñëwuñ ci ngir tontanteek moom ndax waruñoo tontanteek moom waaye lii dañoo gis mu yàgg koo def ñun daal lañ xam sëñ Muntaxaa lañ xam mooy sëñ Tuubaa moom lañ bëgg bu fekkente ni bii woote na tax ci rajo def déclaration ne diw soxna Aida Diallo lii muy def na ko bàyyi ànduma ci tey ànduma ci bëccëg ñëpp bàyyi ko moom mu jaral ko mu solu dàllam dem ba ca soxna Aida Diallo xamal ko ne kon lii nga nekk mooy dëgg kon mel na ne moom waxi Sëñ Muntaxa moo ko njëkk a weddi kon bu mu jaxase premier ministre ak population bi bu ko jéemee du ko man ñun daal ñu ngi ci ginnaaw premier ministre fa yéene ko ànd jàppale ko waaye lii daal lañ newoon nañ ko wax ci wax ju gàtt rek mooy lii nga xam ne moom la bëgg a jaxase murid yi jaxase ko taalibe yi ak premier ministre Amadou Ba ak njabootu Sëñ Tuubaa gi mënu ko ba mu ñëwee kër borom saam la bëgg njëkk dugg fekk ñooña kilifa mënta toog yenn heure yi mu dem tëdd daaru salaam sëñ aboon ma nga daaru ma nga ma nga euh, poroxaan kër sëñ Moustapha Njaate dem na fa saafonte naa moom te teewul sëñ Jili Lappe mi nga xam ne mooy porte parole borom saam ba mu ñëwee mu yëg ne ñëw na ko ci respecté gum ko respecté ab gum xam waa kër suñ tubaay yi nu ñu fonkee gan bàyyi na lam doon def lépp trois heures du matin di recevoir ko ca saalub maam borom saam yeneen këri diine yi nga xamante ni bii nag ñu ngi ci dëkk bi te accès fi xam nañ ne jot gee ko mayewutoon te xam na ne bu fi ñëwee du leen fi fekk ndax guddee na jàpp nañ ne dana fi ñëw dimanche pour immigré stade bi bu ñëwee ñu ngi koy séntu jàpp nañ ne foofu dana fa àgg ndax ñun lu ko defaraat rek ca lañ nekk mhm. lii daal mooy li nga xam ne moo taxoon mouvement marabout républicain woote ñu bëgg mu leer àdduna bépp ne Sëñ Muntaxa daal kenn mënu koo jaxaseeg murid yi Amadou Bayit kenn mënu koo jaxaseeg murid yi bu fekkente ni bii kuy mooy ndigalul Sëñ Muntaxa am na moom gar fàllu gala si la moomu la wax na la wax ci Aïda ne Aïda Diallo yow yaa am dëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullah